sax ci liggéey tafarlu lool te jóg jubal murid dafay takk ndigam nangu ndigal sax ci liggéey tafarlu lool te jóg jubal taroy seexu Ibra Faal lamp ngëneel ndax lu mu am liggéey la ak nangu ndigal te rafetal ba mel ni Seex Abdul Karim xar baax la feese teewu ko nangu ndigal cat mi la rek ak gërëm loo xam ne sunu jëmm ji sax lakk na ci cat gi nga bëgg a sant Mbàkke gannaaw ba la maa tàmbali noonu mën a nuyoo la ba maa ngi nuyu di siyaare suñu mbéy daara yi ci kër gi. soxna maam Amin Mbacke ak soxna Fatou Kuy ak soxna Linka di siyaare sama sëriñu bopp mooy soxna May Laxat nga xam ne sama sëriñ la sama xarit maa ngi koy maa ngi ko siyaar bu baax Mbacke bu eh, di siyaare it nag mboolem mbooloo ñu fi toog suñ Jalle Jabara suñ Mbaye Talla Fall ak suñ Fallou Niang suñ Djili Mbacke moom suñ Sall bi la suñ Cheikh mi maa ngi déglu sax yow laa war a déggee moom suñ Saliou moom suñ Fallou di nuyu baax naa fi jaww ak di nuyu sama mbokk yi dong yi ci kër gi si wàllu jàll Guèye si Ibrahima Mbaye si Rafal Guèye ak suñ ba dégeen ak mboolem Baye Fall ci kër gi suñ Babacar Dior ak ñëpp rek maa ngi leen di nuyu leen baax Mbacke Mbacke. Euh, ziar bi dafa mel ni mooy mooy ndaje mi dafa mooy ndaje mi nga xam ne moo ëpp doole suñu ndaje yi yi nga xam ne dañ koy daje ngir di sàkku ngërëm ndax bis bii kat dafa mel ni at la ba at mi ci ci la ñuy jàkkaarloo si jëmm ji bis bii da nga ko mën a am ñun waa kon Mbacke ñu ngi santaat bu baax ci fekke ngeen ko fekkewaat ñu bëgg nga ñaanal ñu nag ngay jàpp fi lool te wér ñu fekkee ko nag ay déwén di déwén di déwén déwén ci barke Cheikh Amadou Bara borom borom weer wi kon Mbàkke damay gaaw a tuuti rek ndax jotaay bi damay bañ mu yàgg damaa bëgg lim daayira yi fi teew waaw bala maa lim daayira sax damaa bëgg laa jox seen addiyo ñoom ndax Mbacke wax naa la ne fédération bii yàlla dafa dogal ñu fédération boo xam ne dafa am kees fédération bii amul kees wax naa la ne la añu ajuma yi nga xam ne dañ koy togg di jëm si ci yow mooy la daayira boo gis te ma lim ko buñ ko aayewu ñetti yoon aaye nañ ko ñeenti yoon jëm si ci yow kon yaakaar naa bu fekkee ne am nañ kees xam naa ne la cee nekk du ko tax a am solo loolu bu bis bi moo tax Mbacke euh, sa yi ñu ngi nii waa nangu di ñu ñii yaa ma ñoom may ñuy doxal ba àggsi tey jii fii nga xam ne yaa ñu dimbalee jotaay bi ñu mën koo am euh, ndaje mi ñu daje nag euh, Mbacke. damaa bëgg ñu di ko def ay ati ati ati ati ati at jëm si ci yow ndax jotaay bi yomb ndax yàlla dogal na mbooleem koo xam ne dafa bokk ci makaarimul axlaaq na mu digal ñëpp ñu ngi fi teew bu dee daayira yu sori yabal nañ ci leen fi teewal wala ñaar wala ñett daayira yu sori yi am na ci ñoo xam ne bi ñu ñëw ay gaar la indaale fi la ñeent Mbàkke sa gaañaar yu woon Mbàkke ñii ñu la bëgg la ñooñu ñu la sopp ñii mbàkk ñoo la wóoru ñoo la naa sax bëggu moom leeral waaye dafa am liggéey boo xam ne dama ko bëgg dama la bëgg a defar te leeral gi ma ciy leeral damay bëgg rek mu gën a weegu ba pare mbooloo mi gën a fasanti ko ba kenn du am benn dang-dang dama laa bëgg liggéey lu yàgg réew si moo tax ma bëgg laa leeral at yii bi Mbacke euh, mi ngi nii mi ngi toll ci ñetti million ak genn wàll. wax naa la nafa lii duñ ci dara li wane ne duñ ci dara wax naa la ko léegi nee naa la amuñu kees amuñu kees de loolu dama bëgg ñëpp xam ko te ñu fi xam na loolu fédération bi amul kees. wax naa nag fii daal ne la ku fi am kees nga doyul ne sa kees daraan ca ma jox la añu àjjuma te boo koy togg rek di jeexal ndax añu àjjuma yi buñ ko calculé li koy togg fanweeri junni la te daayira yi am na ci ñoo xam ne seen kees xool ko lu jege loolu sax nekk kon yëpp yi du man du ñoom yow mii la ñun doo ñu jàppale yow mii yaa jàppale yow mii yaay kii naa suñu borom yow du yow léegi loolu dama ci leeral wax ne mhm. Euh, sa daayira boobu nekk Angleterre muy makaarimul axlaax nangu ndigal bu Angleterre sonal naa leen trop diggante démb ak tey di leen woo ci liggéey bi ñuy dajale at yi ñoom seen at yi bu ñëwee daaw waxoon naa la ne la yónnee bii yoon ñaari million la ñu yónnee sëñ bi ñooñu ñu doy waar la boo gisee ma di leeral am na borom positif yoo xam ne ñoom xañ li ñu man ñoom mën nañu ko waaye attanuñu ko def ci liggéey sax te ñoom nag dañ koo attan def ci liggéey ñu jaxasoo man nag nga boole baag ñoom foofu ci Angleterre ndax mboolem mbooloo fu ñu ko mën a sos lañ cey waxtaan ba déggoo sax boole rek lay doon waaye du sunu du sunu du sunu man na lu jëm wala dara lépp yaa koy jël. daayira ba nag Aboori Diagne mooy jëriñ ja gars yi xam nañ ko Abdallah ak Abdou Gueye. Abdou Gueye bëri démb jox naa la ba fii téléphone fekk moo la yebaloon fii ay waa këram ñu jógee yi bi ma ko yónnee benn la amoon sax Abdou moo jaayante benn bi ci sëñ bi nag loolu ñu mat la mat a leeral nag ndax ñi nga ne am nañ ko te te te te amuñu yéene def ko bi moo tax te bis bii bu accès lu waaye am rek da nga def ko bi sëñ Fallou la te yow de ngi jégalu kàddu la ko daan sa keppaar amuñu fii. jàmbaar la de te bu ne ko dee seere dañ koy wax ngir doomu aadama li war a seqal morom ji ndax dañoo wax ne boo mënut a seere sa morom. kon kookee doon na koo xam ne bàkkaar la xolam feese del moo tax ñu di ko seere waaye waxuñ na ci mun waxuñul yaa na ko gën a xam fuuf waaye nii mu àndee waa nangu ndigal di leen lim kenn par kenn noonu la koy defee bu siyaar bi amee bu siyaar bi amee ñu toog sa kanam nii nit ñi siyaare di ñaanlu ku ci ñëw doon kenn dana la taxawloo ne la Mbàkke kii mooy gi dëkk nangam nangu ndigal nangam nangam ma xam li mu jublu bëgg na ñëpp liggéeyal la bëgg na ñëpp it makaarimul axlaax ñu ciy dox ba pare nag mu boole ci benn nag li ñaan slogan muy nangu ndigal loolu it ñu war koo bàyyi xel bu baax nuyoo bi mooy gërëm leen ak ñaanal leen rek li ñuy sëriñ bi nee na waaye gaa yi li ñuy wax. ñi fi wax ñépp li ñuy wax. nee na ñi fi wax lépp li ñu wax. li ma gën a xamal ne lu wér la. nee na li ko gën a xamal ne lu wér la. lépp lu mu bëggoon a wax rek. nee lépp lu mu bëggoon a wax rek. ñoom ci lañ jaar na na ma ko bëggee woon. nee na ni mu ko bëggee woon rek ñi fi wax ñëpp ni mu ko bëggee woon rek fa lañ jaar. ko naroon a waxee ni mu ko naroon a waxee rek. ca lañ ku nee na ci wax rek ci loola nga jaar. loola xamal ne li ñuy wax. nee na loolaa ko xamal ne li ñuy wax. wér na ci ñoom. nee loolaa ko xamal li ñuy wax wér na ci ñoom. Euh, seen jëwriñ bi nee na wax nañ dëgg ci seen jëwriñ Serigne Xaadim Ndaw mi nee na ci lay tàmbalee. moom la koo xam ne kii. nee na Xaadim Ndaw mii nit la koo xam ne kii. am na lu wut de. nee na Xaadim Ndaw mii am na lu muy wut de. te li mu li muy wut ni koy wute rafet na lool. nekk ak man. sëriñ nee na Ndaw mii fii ci kër gi la nekk ak man. waaye taxawaayam ci man. waaye sëriñ bi nee na taxawaayu Xaadim Ndaw ci moom. man maay def léeg-léeg ma naan ko xaadim del def ndànk. sëriñ bi nee na maay dem ba mu yàgg ma naan ko xaadim del def ndànk. ma xaadim bu ma toogee bi sax. nee na xaadim mii su ma toogee ci bi sax. woo ko yónni ko. woo ko yónni ko. toog ak bunt bi sax da koy da man maa naan ko xaadim del def ndànk. man maa naan ko xaadim del def ndànk. te loolu nee na loolu da li ñu wax rek da koo namtal ci gaayam yii mu àndal sëriñ bi nee na munta lim ñëpp de nee na dana ci tudd ku mel ni Ali Baba mii danaa ci tudd ku mel ni Fallou Gueye mële bu ñaari tëli. Fallou Gueye. Fallou Gueye. ak Ali Baba mii. ay borom pës seef lañu. te. te ñu àndal ñëpp. ñi lañ mel. noonu lañ mel. Fallou Gueye. Fallou Gueye mii. léeg damay am lu may soxla ñu indi ko fii. damay am lu may soxla ñu indi ko fii. jëli ko Ndakaaro indi ko Ndindi. jëli ko bu ma waxee xaadim ndaw ne ko nangu nangu ne ko indi bu suba damay jëkk ba guddi rek ba xaaji guddi. damay jëkk ba guddi rek ba xaaji guddi. xaalis ndaw dama na. xaalis ah, loolu kat mujj na ak si mbir ma ñëw na. Fallo indi na ko léegi fanaan si na tey fanaan si na tey. te loolu. te loolu. ci la dëkk. te loolu ci la dëkk de. nga xam ne. nga loola. loola. Xaadim Ndaw bi ñu doon wax. Pastef Xaadim Ndaw bi ñu doon wax. ci la jóge ci la jóge waaye sa jëwriñ kët. waaye sa jëwriñ kët. bu amee Pastef. bu amee Pastef. te yow amoo Pastef it. te na muy doxee doo dooni doxee. na muy dooni doxee de. Xaadim Ndaw. Xaadim Ndaw. day borom Pastef. day borom Pastef. waaye waa këram ñii. waaye waa këram ñii. dafa fekk. ñu am pësteef. ñoo am moo tax ñu topp ko ci lim bëgg. moo tax ñu topp ko ci lim bëgg. ak lim nangu. waaye. mboolem nee na mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci makaarimul axlaax nangu ndigal. ñëpp noonu lañ mel. ñëpp mel noonu yi ma wax. góor ñi ak jigéen ñi. seen pësteef sëriñ bi nee na seen pësteef daal. man ràññee naa ko xam naa ko bu baax. sëriñ bi nee na ràññee na ko xam na ko bu baax. seen bëgg-bëgg ci man ak seen yéene. nee seen bëgg-bëgg ci moom ak seen yéene ci moom. xam sëriñ bi nee na xam na ko xamin wu leer. sëriñ Fallu mi tax nag. Fallu mi tax nag. mu mel noonu ci man. mu mel noonu ci man. maa ngi leen di dénk sëriñ Fallu. nee na sëriñ bi nee mi ngi leen di dénk sëriñ Fallu. te defe naa sëriñ Fallu ku ñu ko dénk. te defe naa sëriñ Fallu ko dénk. sa xel dal. sëriñ bi nee na moom daal mu ngi leen di xamal ne lii ñuy def nii ak dolliku rek lañ ciy jëlee incha allah nee na ki mu leen dénk daal li ma leen di dénk. li ma leen di dénk. nee na nañ dolli rek. ndax ndax nee na dégg nañu ne sëriñ Modou Moustapha. da daan wax ne. da daan wax ni. yéemul ku tàmbali. yéemul ku tàmbali de. ku yeggale waaye ku yeggale la yéem. kon nag. fexe leen ba lu ngeen def ci ak mbaax. fexe leen ba lu ngeen def ci ak mbaax. ak bëgg Sëriñ Tuubaa. ak bëgg Sëriñ Tuubaa. ak liggéeyal ko. ak liggéeyal ko. rek yokk leen ko. ndax jëmmi Sëriñ Tuubaa mooy koo ne. ndax jëmmi Sëriñ Tuubaa mooy koo xam ne. ku def ak moom benn. ku def ak moom benn. da nga xam ne danga ci jëlee lu ëpp fukk. xam ne da nga jëlee lu ëpp fukk. loolu yàlla may na ko. loolu yàlla kon nag. man. Serigne bi nee na moom. du ma du ma du nee na moom du tiit du jàq du jaaxle. ndax jëmmi sëriñ Fallu. ndax jëmmi sëriñ Fallu. ak jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba. ak jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba. rek a tax rek a tax du jàq du ma tiit duma ma jaaxle. kenn sëriñ bi nee na kenn mënu koo yen. lu nee na lu mu mënta yen. lu mu nee na kenn mënu ko ko yenn ndax ñi ma yenulee tax ndax ñi ma yenulee tax ñi ma yenule wala ñi ma yenul wala ñi ma yenule wala ñi ma yenul ñoo tax kenn mënuma yen yenn lu ma tiital sëriñ bi nee na gone yi daal maa ngi leen sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal ngeen gudd fan ba yàlla defal leen xéewal yoo xam ne yii lu bëgg a def ci lu baax ñu def ko. te yàlla defal leen xéewal yoo xam ne yii lu ngeen bëgg a def ci lu baax rek def ko. te it dana am. te it loolu yi kat dana am. ndax nit ñu koy defee. ndax nit ñu koy defee. day fu for. nit day fu de. sëñ Fallou ko sañ. sëriñ Fallou Mbacke moo ko sañ. moo tax ma di leen wax li ma leen di wax. moo tax ma di leen wax li ma leen di wax. lu baax fu ko waay defee. lu baax fu ko waay defee. mu baax mu baax. waaye xam nga ne lu baax nga defee ko ndindi sëñ Fallou waaye xam nga ne lu baax nga defee ko ndindi sëñ Fallou gii. defe nga ko foo xam ne. defe nga ko foo xam ne. lu baax lu ne. lu baax lu ne. ku sañ ci dëkk bi def na ko fi. sañ ci dëkk bi def na ko fi. moo tax. lu fi waaye def fii ci lu baax rek. mu gën a baax mu gën a baax. xale nag. sëriñ bi nee na xale yi nag. mënu maa wax seeni tur ne de. nee na mënu maa wax seen tur fi mu ne de. waaye ñoom ñëpp xàmmi waaye ñoom ñëpp xàmmi naa ndax ittewoo guñ ma ittewoo rek. ndax ittewoo guñ ma ittewoo rek. ku mel ni Mamar Ñang ñoom ñii. ku mel ni Mamar Ñang ñoom ñii. ak ñoom ñii ñëpp. ak ñoom ñii ñëpp. ba ba nga man bi kii di wax élaw bi nga doon wax sax moom laa defoon ne moom ngay wax Modou. nee na ak ki xaadim doon wax muy élève boobu bii nga xam ni bu ñuy jëf yàlla dogal du am lu mu jëfee waaye day dem ci marché bi di yanu ngir bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa. bi mu la. nee na bi mu defoon ne Moodu mii lay wax ndax Moodu élève la di kooka. Ah. Ah. waaye bi ñu ñëwee jébbalu bi mu eggee ne waajuram damaa jébbalu ñu ne ko kan mënoo séer bu kër ñu daan ne waaye yow de loolu foofu nga dem mu mu tën sax tàggu foofu rek la yow diiru boobu ak léegi nag mos yoxe ko mos a waaw lu baax bu la bu bu ñëwee ci yow ba ñor sëriñ bi neen lu baax bu ñëwee ci yow ba ñor loolu loolu doo doo tàggu kenn nee na boo koy def doo tàggu kenn dégg naa sëñ Mor Khary si xam ngeen sëñ eh, Mor Talla Fall sëñ Mor Khary si ak sëñ Malick Bassim si xam ngeen seen histoire ñoom waaw sëñ eh, dégg naa sëñ moo xam ne sëñ Mor am na waxtu wax ne wi daaray bàyyam bi moo ko yoroon sëñ moo am waxtaan fenn sëriñ bi dafa ñu nettali ñaari doon ñaari ñu kilifa yu fi nekkoon yoo xam ne seexi sëriñ Touba lañ muy sëñ Mor Khary si ak sëñ Malick Bassim si ñoo sëñ Mor Khady si nag daaree baayam ji moo ko yore woon. boobu moo fa doon moo doon boobu baay bi màggat na. booba baay bi màggat na mu wóotu ko ci daara ji di jàngale. di jàngale ci biir boobu sëñ Malick Bassi moom mu ngi sëñ Malick Bassi si moom mooy rakki sëñ Mor Khady si waaye boobu mu ngi fii ci xulle gii. sëñ sëñ sëñ Mor xëy ci daara ji rek ne man daal. sëriñ Mor si xëy ci daara ji rek ne man daal. danaa tàggu ci sama baay bawal bawal daal gànnaar danaa ko bëgg naa koo fekk. nee na mu ne dinaa tàggu sama baay boobu sëñ baa ngi gànnaar waaye ñoom sëriñ bi ci bawal lañu wax mu ne sëriñ bi ci bawal daal nekk gànnaar dinaa ko. day tàggale sa bopp day tàggale sa bopp ak sa baat. ñu di ko mun munee ci daara ji rek. xam nga dongo ni muy def ñu jël mbir mi ne def ko tem di ko mun munee ci daara ji rek yooyu yëngal xew a sëñ mooy xëy si neen day tàggu si bàyyi waaye bu ko tàggoo xam ñu di koy waxtaanee ci biir daara ji. waaye yaram wi gën di tàng rek. sëñ moor daal li ko dugg. muy fekki Sëriñ Tuubaa tax yaram wi gën di tàng rek. yaram a tàng. sëñ Mor saa yu xëyee rek yaram wi gën a tàng. ba benn bis rek. ba benn bis rek. mu ne yéen dina ngeen bu ma tàggoo bàyyi mu ne ma dana tàggale sama bopp ak sama waaye bu ko bu fekkee dana ko def de tey dana ko def. yéen dana ngeen su ma tàggoo day toggale te jii sama bopp ak sama baat waaye fekkee dina ko def tey dina ko def ndax naa ko tàggu. booba góor gaa ngi sikkim bu rëy la yor te te te bari xam-xam. nee na bàyyi ji nag boo ko gisee day raglu ndax magam diine lay doon moo xam ne yor sikkim bu rëy bari xam-xam lool mu war koo xaar nag mu war a ñëw tàggu si ko. nga xam ne suñ moor boobu daanaka danaan day boo gisee da ngay mel da ngay def def suñ maxa ndax gëmm rek ragal yàlla rek nga xam ne daanaka bët yi du xol. nee góor gi saa yoo ko gisee sëñ Maxtaar. du siggi du xippi ndax ragal yàlla rek du xool ndax ragal yàlla ragal yàlla ragal yàlla da defe ne daa gumba sax fekk gumbawul sëñ sëñ sëñ Mor daal di ñëw nuyoo sëñ Mor daal di agsi ci bunt bi daal di nuyoo baay bi ne ko kooku bi mu ne ko mu ne ko mën a moor mu ne ko agsil mu ne ko agsil mu daal di dugg sëñ Mor daal di dugg daal di toog ci ruum bi. sëñ Mor daal di ak si toog ci ruum bi. fekk sëñ Ma Mor a ngi tëdd ci lal bi. fekk baajur wi sëñ Maxtaar Pend si mi ngi tëdd ci lal bi. fab loxo bi teg nii ci kanam gi. mi ngi tëdd waaye daa jël loxo bi teg ci kanam gi. mu ne ko bàyyi de faa la soxla woon. sëñ Mor na ko xam nga ay Saalum Saalum la mu ne ko bàyyi de faa la soxla woon. mu mu bàyyi bi ne ko lum doon. bàyyi bi ne ko lum doon ñoom duñu wax lum doon lum do lay wax lay lay wax. mu daal ne ko man day faa bëgg a fekki sëriñ boobu ci gànnaar. mu ne ko bàyyi man de faa bëgg a fekki sëriñ boobu yi ci gànnaar. sëriñ Touba sëriñ Touba. bàyyi bi ne bërit. ba mu waxee loolu rek bàyyi bi ne bërit fekk daal tëddal waaye bàyyi bi dina bërit. toog toog. daal ne ko xay. yow de Mor bett nga ma. yow de Mor nga ma. xam nga Mor day gën a tiit. xam nga bu waxee loolu moor day gën a tiit ndax lañ ko waxoon. ah bi moom ci loolu. fex defe baay bi loolu yi mu ko tàgg ci ànd. baay bi ne ko man fii nga yow mu ne ko ah xam nga lu tax nga bett ma. mooy man lii bu ma toll woon ni yow. man lii bu ma toll woon ni yow. bu ma koy defi. bu ma koy defi. du ma tàggu man du ma tàggu sama baay kon de. damay dem rek. man damay dem rek. nga xam ne dégg naa pitim boobu ñu Saalum am na pecc mu ñu wax pitim te Saalum Saalum yi di ko def nee nañ yaakaar nañ ne keroog la xew. sëñ Mor bi génnee ci foofu. sëñ Mor bi mu génnee ci néeg bi. jëm ci daara ji jëm ci daara ji. da doon pitim da ba àgg ci daara ji. mooy di fecc di sant Serigne Touba. xam nga ñoom ñoo ñoo bokk ak waa Tiwaawan. xam nga ñoom ñu jege waa Tiwaawan lañ ci bokk. sëñ Ousmane sëñ Ousmane si. sëriñ Ousmane si. ñoo bokk benn benn maam. ñoo bokk ak sëñ Moxtar si benn maam. mooy maam borom Faas. mooy. maam borom Faas. mooy maam borom Faas. foofu rek lañ tàggaloo ñoom ñu ñëw fii. nee na foofee rek lañ tàggaloo ñoom ñu ñëw fii. ci sëñ bi ci sëñ bi. ñoom jëm nele ñoom sëñ Ousmane ñoom ñoom jëm nele ci Alaaji Malick. noonu rek lañ àndee. nee noonu rek lañu àndee. waaye mbir boo ci nekkee ba mu ñor xomm. waaye mbir boo ci nekkee ba mu ñor xomm. daanaka da ngay yëgle rek waaye dootoo tàggoo. nee na da ngay yëgle rek waaye dootoo tàggoo. waaw ne mbir mu jëm ci Sëriñ Tuubaa. bu ñëwee ci ba ñor xomm. bu ñëwee ci yow ba ñor xomm. dootoo gis dara lu dul sëriñ Tuubaa. dootoo gis dara lu dul sëriñ Tuubaa. ngi leen di gërëm yéen sëriñ bi nee mi ngi leen di gërëm yéen ñëpp. maa nee na mi ngi leen di ñaanal. te te di gën a jàpp rek. ci sama sëriñ bi nee na mi ngi ñaan. lépp lu ngeen bëgg te lu baax. lépp lu ngeen bëgg te lu baax. te sori leen te sori leen. sëriñ bi nee na mi ngi ñaan. ci barkeb sëriñ Fallu. yàlla xëcc leen bu ma agsi ci yéen. lu leen jege. te ngeen ragal ko. yàlla soril ko yàlla soril ko ba mu sori leen lool. sëriñ bi nee na ngeen xam ne nag. ñaan gi na ma leen ñaanal na ngeen ci am yaakaar bu baax. ndax ndindi laa ko gii laa ko ñaanee de. ci barkeb Serigne Fallou laa ko ñaanee ci laa ko ñaanee. kon nag. na ngeen ci am yaakaar. waaye bu ngeen delloo daal. waaye bu ngeen delloo daal. lu ngeen gën a yaru. lu ngeen gën a yaru. a a bëri ay teggin. mu gën a mu gën a baax. bu boobaa ñaan gi ñaan gi. faaw yàlla ak seen ko ci yéen. fa ñaan gi ci yéen. bëri teggin gi mooy ku ngeen gis rek ngeen ormal ko. bëri ko. suturaal itam. màggal ko màggal teral ko teral ci seen wax ci seen wax. ak seen jëf ak seen i ndax yàlla bëgg ndax yàlla day bëgg na lool kuy teral jàmm yi. ndax gannaaw moo leen teral moo ko wax. gannaaw yàlla ci jëm boppam moo leen teral ndax moo ko wax. kon kay bëgg na ku leen teral. kon kay yàlla bëgg na ku leen teral. moo tax képp koo xam ne kii. moo tax képp koo xam ne kii. yaa ngi teddandil yaa ngi teddandil benn doomu aadama. yaa ngi teddandil benn doomu aadama. yàlla ngay bëreel. yàlla ci jëm boppam moom ngay bëreel. ndax moom mi ne moo moo moo moo nu moom yàlla mi ne moo teral ñun jaamam ñi. ba noppi nga lim ne teral na ko nga albatiku yow di ko toroxal. lim ne teral na ba noppi nga albatiku yow di ko toroxal. kooku day ku ko seetlu. xam ne ki ngay toroxal. ki ngay toroxal. sequ leen dara. sequ dara. yàlla nga amal affaire. yàlla nga amal affaire. moom mi teral yëfam. moom mi teral yëfam. yow yooyee mu teral. yëfam yooyee mu teral. nga ne da koy toroxal. yow nga ne da koy toroxal. loolu wóorul. sëriñ loolu wóorul de. kon ku ngeen gis rek. kon na ngeen ko wormaal. màggal ko màggal ko. bu defee yàlla itam. bu ko defee yàlla itam. dana leen wormaal. dana leen wormaal. dana leen màggal. loolu rek laa sëriñ bi nee na loolu yi rek laa leen di digal. te ku te kuy ñëw ndindi rawatina ci. rawatina nag kuy ñëw ndindi gii. ndindi ku fi ñëw. fa nga jóge boo fa delloo. fa nga jóge woon boo fa delloo. na nga yor melo yoo xam ni. na nga yor melo yoo xam ni. ku la gis ku la gis. xam ne dem katum dindi. xam ne dem katum dindi mi ngi nii. ñu ne bu ko defee ñu ne ah kuy dem dindi nii lay mel. waaye di dem dindi. di dellu fa nga jóge woon. di dellu nga jóge woon. boo demee duñ gis dara luy niroog ku jóge dindi. demee boo demee duñ gis dara ci luy niroog ku jóge dindi. loolu bu loolu day bu leen ko def. sëriñ bi ne na loolu yéen a góor góor góorgóorlu bu baax. fu ngeen dem. fu ngeen dem. bu ngeen fëggante yaru it. bu ngeen fëggante yaru it. na ngeen fexe ba bu leen fa kenn a yaru. na ngeen fexe ba bu leen fa kenn gën a yaru. dégg ngeen ko. am na koo xam ne. sëriñ bi nee na am na koo xam ni. ndaje mu mel nii lañ amoon. ndaje lu mel nii lañ amoon. nuy waxtaan ba yàgg mu jóg taxaw. nuy waxtaan ba mu yàgg kooko jóg taxaw. ne sëñ bi. ne ne sëriñ bi ne ko sëñ bi. bëgg naa nga ñaanal ma de. bëgg naa nga ñaanal ma de. ndax damaa bokk ci daayira bi. ndax damaa bokk ci daayira bi. te neexul samay samay kilifa. te bi bokk ku ma ci bokk neexul samay kilifa. te mën a mënuma bàyyi daayira bi. te daayira bi de moom mënuma koo bàyyi. te li samay kilifa bëggul it. te li sa te li samay kilifa bëggul it. bëgguma koo def bëgguma koo def. bëggoon nga ñaanal ma. bëggoon nag nga ñaanal ma sëriñ bi. ba nga xam ne danaa déggoo ak ñoom. ba nga xam danaa déggoo ak ñoom. mën a des ci daayira bi. ba mën a des ci daayira bi. ba noppi déggoo ñoom. ba noppi nag déggoo ak ñoom. man ko ah, danaa la ñaanal de. sëriñ bi ne ko ah danaa la ñaanal de. waaye danaa la digal itam. waaye itam du tey danaa la digal sa baay. sëriñ bi nee na ma ne ko gis nga sa baay. sa waajur yooyu. sa waajur yooyu. bañuñu nga dem ci daayira bi. bañu ñoom bañu nga dem ci daayira bi de. ndax ñu lu baax. ndax ba ñu ñu lu baax. waaye ndaje yi dafa bari léegi mbooloo yi. waaye ndaje yi dafa bari léegi mbooloo yi. te da ci gis mbooloo yoo xam ne. te da nga ci gis mbooloo yoo xam ne. lu nekk mooy na ci biir mbooloo yi ñuy ragal nag. ñuy ragal nag. xam nga nit dafay waajur dafay bëgg njabootam. xam nga waajur dafay bëgg njabootam. ñuy ragal. ñuy ragal. dugg ci mbooloo moo xam ni. nga dugg ci mbooloo moo xam ni. da nga yàqoo rek da nga cay yàqoo rek. da nga amee lu ñaaw rek. da nga cay amee lu ñaaw rek. loolu rek tax loolu rek nee na loolu rek la say waajur ragal. waaye. waaye. boo demee. boo demee. da ngay fexe ba. da boo ñëwee ci mbooloo mi. saa saa boo ñëwee ci mbooloo mi. boo delloo boo delloo. lu baax lu newoon ci yow. lu baax lu newoon ci yow. nga yokk nga yokk ko. bu ko defee. bu ko defee. ndax. ndax. am na am na am na am na gone yoo xam ne. ndax am na gone yoo xam ni. léeg-léeg seen waajur daf leen di yónni sax. léeg-léeg seen waajur daf leen di yónni sax. duñ bañ a dem de. duñ bañ a dem de. waaye demin wu soof la ñuy dem waaye bu ñuy demit la ñuy dem. ndax sa waajur ne la kaay demal ma barab. ca bitig bi wala feneen. ndax sa waajur ne la kaay demal ma ci bitig bi wala feneen. nga ne dënn. nga ne dënn. toog toog. ba mel ni du yow lay wax. ba mel ba mel ni du yow lay wax. loola boo demee. léegi loola boo demee itam. dem nga dem nga. dem nga waaye dem gu soof. waaye dem nga waaye dem gu soofit nga dem rek. boo dee dem ca daayira ba di ñëw. boo dee dem nag ca daayira ba di ñëw. boo ñibbisee. boo ñibbisee. dënn jooju nga daan def bu nga daan def bu la sa waajur yónnee. nga bàyyi ko nga bàyyi ko. buñ la yónnee buñ la yónneetee. balaa seen kàddoo daanu sax. balaa seen kàddoo daanu sax. fekk la ci yoon wa. fekk la ci yoon wa. ak yu mel ni yooyu yëpp. ak yu mel ni yooyu yëpp. dana dana waral. dana waral. bu ëllëgee. bu ëllëgee. bu bu waxtu daayira ba jotee. bu waxtu daayira ba jotee. boo demut. boo demut. ñoo la naan ah, da amul taya. ñoom ñoo naan la waaw seen daayira dafa amul taya. nga ne ah, am na bi kay am na tey. waaye maa ko jékkuwul tey. waaye dama koo jékkuwul tey. ñoo lay jox paas. bu ko defee ñoom ñooñee ñoo lay jox paas. jox la loo yóbbu. jox la looy tege. gannaaw xam nañ ne. saa boo dee dem ci daayira ba di ñëw lu baax rek nga fay jële da nga fay gën a baaxee boo bëggee bañ a dem boo ëllëgee boo bëggee bañ a dem ñoo lay jàppale ñoom ñooñee daan tere nag ba nga demee ba gis ñoom bañ gis yow ak yokkute ci baax ñoom ñoo lay jàppale ngir nga mën a dem nee na loolu lii nag la leen di wax nag yéen bu ngeen demee ci seeni mbokk. lu ngeen yoroon ci mbaax. lu ngeen yoroon ci mbaax. na yokk na yokku. ñu xam ne ci mbooloo mi ngeen ko xam ne ci mbooloo mii moom ngeen jëlee mbaax gii. ku ci defoon ku ci sàgganoon it. ku ci sàgganoon it. càggante ka nga teg ko fële. te yor jikko ju baax. te ju rafet. ba ñu xam ne. kon daayira bii. mbooloo mii. ci yow lu bon. mi ngi dind ci yow lu bon. di def ci yow lu baax di def ci yow it lu baax. waaye. waaye. di jóge ci mbooloo mi. di jóge ci mbooloo mi. di dellu di dellu. boo demee. boo demee. gën a ñàkk solo. gën ñàkk solo. loolu bu leen na loolu yi moom bu mu leen dal de. di ñëw ndindi di dem daal. di ñëw ndindi gii di dem daal. ku koy def ku koy def. war ngaa yóbbaale loo xam ne. ngaa yóbbaale loo xam ne. la ku la gis. Fallou sa xam ne sëñ fallu sa xarita xaritu sëñ Fallou nag. xaritu sëñ Fallou nag. yombut de. yombut def doo def nu la neex rek mel. doo ndax xaritu day niru xaritu sëñ Fallou. day niru xaritu sëñ Fallou. sëñ Fallou nag ku ne xam na ni. ku ko niru. lu baax rek ngay def. lu baax rek ngay def. moom ngay wax it boole ci. sëriñ bi ne na loolu lii moom laa leen digal. te di leen ñaanal itam yàlla yombalal leen ko ba faw jërëjëf fu waay na tal te fas lim bëgg rek te wax amin leen benn kàddu waa Angleterre ah. bëggoon naa leen benn kàddu ndax ñoom ñu mbooloo kay li ma wax kay ñëpp ko bokk waaw waaw bëgg sëñ Tuba ak joxe addiya rek la ñuy def moom la ñuy def. waaw sëriñ bi nee na waa Angleterre rek ñi fi rek ñoo yem bëgg sëñ Tuba ak joxe addiya rek la ñuy def. li nga wax nag dëgg la li ñu li ñu ñu mel it baax na. waaw sëriñ bi nee na li nga ko wax dëgg la ndax nee na ñuy ñu mel baax na. ndax bëri na ñoo xam ne bu ñu jógee ci suñu dëkk yi. ndax bëri na ñoo xam ne jógee suñu dëkk yi. dem ci réewi tubaab yi dem ci réewi tubaab yi. dañuy soppiku dañuy soppiku. dara la ñu doon doon bu baax na ngay gis nga bi ñu fii ñu yaru la ñu doon doon ay taalib waaye bu ñu demee mel neneen. waaye gannaaw ñoom dañoo jóge fii dem foofu liñ liñ meloon fii sax ci ci taalibe bu mbaax yokk foofu. ñoom dañoo jóge fii niñ meloon fii ci taalibe bu mbaax bañ àggee mu gën a yokk foofa. faaw ñu gërëm leen ñaanal leen. gërëm leen ñaanal leen ñoom itam. sëriñ bi nee li nga wax ci waa Angleterre yow sëriñ bi nee na dégg na lépp. waaye duñ ko rëccu. nee na ndax loolu ñu jëf lépp duñ ko rëccu. sëñ Tuubaa moom. kenn du ko bëgg. di jël saw ñaq di ko ko jox. ba noppi di ko rëccu. nee duñ ko rëccu de. jërëjëf. fu waaye nekk rek la tàllal sëñ bi ñaan waaw. tàllal leen de. te fas li ngeen bëgg ci biir ñaan gi tey wax amin kenn ku ne jàpp sa gémmiñ loolu li nga boo ko sa waa ji sëñ Maxtaar day tàggale sa bopp ak sa baat xam nga gàmm du ñu def ñu jël mbir mi def ko tem di ko murmuree ci daara bi ñee yëpp na li xew dañ moo ko disi leen day tàggu ci bàyyi waaye bu ko tàggoo xam ñu di koy waxtaane ci biir daara ji waaye sëñ ñoom sëñ ñoom daal li ko dugg muy fekk sëñ yaram bi gën di tàng rek sëñ ñoom saa yoo xëyee yaram bi gën a tàng ba benn rek yéen de nee ngeen su ma tàggoo bàyyi day tombale te ji sama bopp sama baat waaye fekkee dina ko def tey dina ko def ndax naa ko tàmm. nee na bàyyi ji nag boo ko gisee day ragal ndax magam diine lay doon moo xam ne fii bu rëy bari xam-xam lool mu ngor koo xaar nag ñu war a ñëw tàggu si ko. ndax ragal yàlla rek du xool ndax ragal yàlla ragal yàlla moom ragal yàlla da ngay def ndax dugg ndax fekk dugg sëñ Mor daal di ak suñ ci buntu bi daal di nuyoo di nuyoo sëñ Mor daal di ak suñ ci réew bi ñu ngi tëdd waaye daal jël loxo bi teg ci na ko xam nga ay saalum saalum bàyyi na ko lu mu doon lu mu dox wax lu mu doon lu mu dox lay wax lay lay wax bu ma koy defi mu tàggu sama baay kon de man damay dem rek mbir boo ci nekkee sa xomb te loolu la rek ci Sëriñ Tuuba bu ñëwee teew ba ñëpp dara lu ay baat yéen a ngi gërëm yéen ñëpp di leen di ñaanal te di leen gën a jàpp jëlu lu ngeen jëlu te ngeen ragal ko yàlla solal ko bañ sori leen lo sëriñ bi leen na ngeen xam ne nag ñaan bii wala ñaan da ngeen ci am yaakaar bu baax ndax nit ñi gii laa ko ñaanee de ci ci barke Sëriñ Fallu it laa ko ñaanee kon nag na ngeen am na yaakaar mu gën a baax bu boobaa it ñaan bi faaw yàlla ak seen ñaan bi jiw dañoo tëgg bi mooy ku ngeen gis rek ngeen ormal ko sutural ko itam màggal ko itam teral ko itam ci seen wax ak seen jëf ndax yàlla day bëgg la lool kuy teral jàmm gannaaw yàlla jëm boppam moo leen teral ndax moo ko wax kon kay yàlla bëgg na ku leen teral moo tax képp koo xam ne kii moom yàlla bi ne moo nu teral ñun jaamam ñi lim ne teral na ba noppi nga ay bëtug yow di ko toroxal kooku de koo xam ne ki ngay toroxal seq leen dara yàlla amal affaire moom mi taral yëfam yëfam yooyu mu taral yow nga ne da nga koy toroxal sëriñ bi kon ku ngeen gis rek na ngeen ko wormaal màggal ko bu ko defee yàlla itam leen wormaal dana leen màggal sëriñ bi ne loolu rek laa te ku te ku ñëw nit ñi rawat na ci rawatina nag ku ñëw nit ku la gis xam ne dem ko tudd nit ñi ñu ne bu ko defee ñu naa kuy dem di dem dindi bu mu demee boo demee di gis dara wax da ngeen dem da ngeen fa gën a yaru it na ngeen fexe ba mu leen fa so bi nee na am na koo xam ni ne ne sëriñ bi ne ko sëriñ bi bëgg naa nga ñaanal ma de ndax dama bokk ci daayira bi te daayira bi bokk ku ma ci bokk neexul sama kilifa te daayira bi dama mënuma koo bàyyi te li sa te li sama kilifa bëggul it bëgguma koo def. te ñoom sëriñ bi ne ko ah danaa la ñaanal de. waaye itam tey dinaa leen digal itam sëriñ bi nee na mën na ko gis nga sa bàyyi ba ñu ñu lu baax waaye nag yi dafa bari léegi mbooloo yi te da nga ci gis mbooloo yoo xam ne lu nekk mooy ne ci biir mbooloo yi nag xam nga waajur dafay bëgg njabootam ñuy ragal nga dugg ci mbooloo yoo xam ni da nga cay amee lu ñaaw rek na loolu rek la say waajur ragal waaye boo demee da ngay fexe sa ci bopp bu ko defee ndax ndax sa waajur wala kaay demee ci bitig wala nga di dëmm toog ba mel ba mel ni la wax loolu loola boo demee itam dem nga dem nga waaye dem nga waaye dem nga soof it nga dem rek boo dee dem nga ci daara ba dem na juróom yi nga daan def nga bàyyi ko bu nga yónnee tey balaa seen kàddoo daanu sax fekk la ci yoon woo ak lu mel ni yooyu yëpp dana bu ëllëgee bu waxtu daayira ba jotee boo dëbut ko defee ñoom ñooñee ñoo lay jox paas jox la looy tege gannaaw xam nañ ni nga fay jëlee danga fay gën a baaxee bu ëllëgee boo bëggee bañ ñoom ñoo ñëwee daan teral ba nga demee ba gis ñoom bañ gis yow ak yokkute ci mbaax ñoom ñoo. ku ci sàgganoo nit sàggal sëgal nga teg ko fële te yor di ko ju baax ju ba ñu xam ne kon daayira bii mi ngi dindi ci yow lu bon loo xam ne ku la di. xam ne sëñ Fallou sa xaritam xarit sëñ Fallou nag yombul de nga nga xarit sëñ Fallou def lu la neex rek nga xarit sëñ Fallou day niru xarit sëñ Fallou sëñ Fallou nag ku ne xamal yombalal leen ko ba Fallou jërëjëf foo toll waaw sëriñ bi nee na ko wax dëgg la ndax nee na ñoo ñi may na ndax bëri na ñoo xam bu jógee si dëkk yi si réew tubaab yi dañuy soppiku doon doon ay taalibe waaye bu ñëwee ne ginnaaw ñun dañoo jógee fii niñ meloon fii ci taalibe bu baax bañ àggee bu gën foofa bu mag du gë leen ñaanal sëriñ bi nee li nga wax ci waa Angleterre yu xaalis sëriñ bi nee na dégg na lépp nee na ndax loolu ñu jëf lépp diñ ko rëcc